なん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 الله أكبر الله أكبر ولا أولى ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أوكي الله أكبر الله Levante em amigo. جهوده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله Allah. बदला رب العالمين الله أكبر الله أكبر salaamaaleykum. salaamaaleykum. déedéet fii bagage mu fa pour pour bi imam ah. am am jëlal maay waaw. bi mooy fii këyit yi ba pare maa ngi fii maa ngi leen gis time duñ téye benn man dina jafe maa ngi téye këyit bi ba pare bi téye dafa métti dama dee confuse dama dee confuse

والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأثيلا نحمده ونشكره على ما هدانا لدينه الذي أكمله وارتضاه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبيه المصطفى كي ولا يالا اك مسلم يالا سينا نتم بمتانا وحبيبه المجتبى ما يصفن بك خم نبي موكو غنال تام سيدنا محمد وعلى اله وصحابته ومن والاه سيدنا محمد اي نعم اي صحابه اك كيف تو

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينتبه صلى الله عليه وسلم وحنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وخمنا قم قا يلا ينتبه تم قم بس بنش فليقل خيرا أو ليصمت قال واحد جام متيم تبني وقت سفان قال تعالى يلا مكوين وحنا جتيرن بنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا من خمنا وحنا قم قا يلا نجد مسلسل باب أكسن جبار تدق سفرة وقودها الناس والحجارة خمنا ne matt ma koy taal mooy yéeféer ak ay doj mooy xiram yi ñuy jaamu te du yàlla alayha malaikatun xilaad shidaad ay malaayka ñoo fa ne di gàdd ñoo xam ne ñu am doole lañ ñoo xam ne ñu dëgër lañ laa ya'suuna allaha ma amarahum ñu mooy mukk ndigal yàlla lu mu leen digal rek yafaluuna ma yu'maruun leen yàlla def danañ ko def ñoom malaayka yi danañ ko matal kullukum raa'in moo leen ku nekk ci yéen sàmm la wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi ku nekk ñu ngi lay laaj ëllëg li nga sàmm danañ la laaj noo ko sàmmee woon nga rek le ko

yaa ñëw jël si leen fa yaqulu fa yaqulu rabbi lawla axartani ila ajalin qarib borom naan yàlla suñu borom boo moom mu ñu loon tuuti ba na benn seconde la wala benn moment sax fa akun min as-salihin defar sama bopp bokk ci ñu ngi ñu jaamu te de sellal de walan yuaxir allahu nafsan ida jaa ajaluha yàlla na bakkan bu demam jot amul xaar da lu mu baax baax lu mu bon bon bu jotee rek mu dem wallahu xabirun bi ma taamaluun dañ na kum fa xam na lépp lu ngeen def li ngeen defagul sax xam na ko te yéene ko ibadallah yéen jaami yàlla yi yan man yaamal suan aw yadlim nafsa yàlla seetaan nga def lu bon baa nga tooñ sa bopp

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام والصلاة والسلام على من yal na yàlla saxal xéewalam ak musalam ci suñu sang bi Muhammad ak ñooñam ak mboolam ñi ko gëm ak li topp lislaam di ko jaamu wasalaatu wasalaam wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin xéewal ak yàlla ak musalam yal na topp ci nga xam ne ki moom la yàlla yónni mu nekk yërmande ñeel bindeef yëpp sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu sang bi Muhammad yal na ko yàlla dolli xéewal ak ñooñam te musal ko alladi ballaga risala mooy ki nga xam ne seede nañ na jotal na ak yonent gi ko yàlla yónni ci jaam jotal na ايدان كل رجي مدال نكو بما ومسح الأمة لا ينبي القيادي نقول لين دارة تليم وكشف الغمة يننا يعني دم جاقر يقم ونكو مريل وجزاء الله خير ما يجزي نبيا عن أمتي يا يعني الله فإن جنجل مفاي أبيون أنتم تقيتم الله أكبر يلا جمع قلا الله أكبر يلا جمع قلا الله أكبر كبيرا يلا مقنا مقا أمول دايو والحمد لله كثيرا ندم شانتكو خمنا أمول دايو نكوي سنت يلا وسبحان الله بكرة وأصيلا نسبل يلا سبا أنقون سحتي دائما أما بعد قلنا لولو ينجام يلا فيا عباد الله ينجام يلا اعلموا به من الذكر والتصبيح ينجي بريل دي يلا أكتم دي سبال يلا وتحميد وتهليل

وأخرجوا زكاة الفطر فإنها طعمة للمساكين نعم، وطهرة للصائمين <laughs> الحمد لله رب العالمين

والصاع أربعة أمداد من بمد النبي صلى الله عليه وسلم نتكاي بوبو ما نانتي موت موت يونتي صلى الله عليه وسلم فمن أخرجها قبل الصلاة فقد أدى زكاة الفطر كو خامنا خينا гenne ko bala mo dem julli ji koku joxe na azaka muri koor wala mu jital ko ban ben fan ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي الأثر لكنا حديث الصوم معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر أعاده الله علينا باليمن والبركات وعلى الأمة الإسلامية جماعة اللهم ربنا تقبل منا إنك سميع عليم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 تجعل في قلوبنا كلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اجعل بلادنا غامبيا بلدا امنا من ماينا يا تارس قارقنا من كل مكان ونجنا من كل بلاء وخلاء وتاهم وسنن ووباء تحير من جميع ذلك بلادنا قاسة وبلاد المسلمين عامة يلنا يلا جمال أدنا بي yalna يلا مسل bindee fi yalna yàlla ñoŋal diina ji yalna yàlla dimbale njiit yi njiiti nguur ak kilifaay aada yi yal na yàlla jubal njaboot ji jàng def ci ñoom jàng ak yar yal na yàlla def fóotu xol yëpp ñu set kenn ku ne loo yéene sa bopp nga yéene ko sa morom loo bañal sa bopp nga bañal sa morom nañ góorgóorlu ci yéene jàmm ñaan jàmm dox jàmm wax jàmm def jàmm jàmm mooy defar àddina jàmm mooy àjjana addina bi jàmm moo fi àjjana àllaaxira gañ jëm jàmm moo fi àjjana ñun ñëpp nañ fexe ba restel xol yi te yéene jàmm bu kenn eene safaan loo eene rek si yow lay dellu si yëpp dañ koy rek la yomal xiyaam yal na yàlla boole si ñu nangul yal na yàlla sàmm njiiti réew mi sàmm ñu koy jàppale ci nguur gi sàmm la itam ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci biir réew mi ak suñuy dëkkandoor nit ku ne sa diggante kër ak ñeneen fukki kër dëkkandoor ngeen réew mi na sa diggante ñeneen fukki réew ci kanam dëkkandoor la noonu la réew yi jokkante dem bi yëpp daal di nekk benn global war kon nag ñëpp fa bokk kullukum ne aadama aadamin turaabi yal na yàlla dellu allahumma salli ala sayyidina Muhammad jërëjëf jëf ku ne yàlla sa éene la lay delloo ak sa ñaan ak ku fexe def éene lu baax ñaan lu baax def lu baax eh, jot nañ sukkuri koor itam président ñi nga xam ne joxe nañ ko ak ñeneen ñi doon joxe ñu dul moom seen teraanga yëpp egg si na ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla ngeen defal yàlla am fa yal na yàlla fay jërëjëf jëf امين امين امين امين امين امين امين امين الحمد لله رب العالمين think that is a blessing for everybody. Uh, we are very, very happy. We are praying for everybody. And we want everybody to pray for, for this country. We don't have any other country in the Gambia that we have. So I think we should all pray for this country. We should all continue to maintain peace and stability in this country. I think it is time for work. Now we are calling on everybody to, to, join hands to work in the interest of this country. But definitely we are extending our special greetings and congratulations to all the Muslim Ummah around the, around the world. Alhamdulillah Rabbil alamin. ngi bu ba or nañ lu dem fan or bi la ñaanalante la ñu ngi ñaan ñu continuer di ñaanal réew mi eh, di ñaan am fi ñun kanam foog loolu moo am solo loolu la ñoo ñaan ñëpp jërëjëf euh, mbaɗigol kon tanta baake nde mawɓe contonna euh, sunta kayra kono tili tan saba mbilom euh, salode mbimo contan lugol ti bare mbe molɓe danila si daniroken si duwalke pour banque o e si duwake banque o ɓe tala ñaato ñaami bare en kana dan duwa doronna mbega nafananga kafu pour gañen banque o ɗo ko ma banque o samba ñaro wayrina banque olom ma banque ɗo soɗona manque gambialde alhamdulillah musidɓe fulɓe e men beltima miɗen calmina foof en koori balɗe capan tati hande ko kaka gasi hande ko ñalade weltare ko noon si on beltima ha paari kadi duwoɗen pour leydi ndi duwanoɗen koye men duwoɗen pour jaam e, heeɓo he leydi he so jaam heeɓima he leydi he tan waynata enen foof en keeɓi jaam ɗum noon garen kadi gonen hunde wotere liggoɗen leydi ndi nde yaara yeeso maare mu alhamdulillahi rabbil alamina ga sukkuñini ga jamanen soron sukkuñini ni o suumu tañji kebbito o suumu xeyri ɗi cuumen pagaji men lenkini contani en kotañayi ɓaɗa contani en dangi halle onan duwa jamanen dagani onan duwo duudagani onon geri ka o sunan kahi onon kahi no jamane ke golli wayro jamane ke no jamane ñaw ma jamane tetagam ya ji kebbito o sumu hayri ɗi cuumen paga ñamen lenkini contane en kotañayi wadde contane en dangi halle onan duwa jamane dagani onan duwo duwdagani onan geri ka o sunan kahi Брат. تنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى الأشجار ولهم عذاب عظيم ومن الناس من